waaw tey dama woote woon euh, pour euh, benn déclaration point de presse pour wax ak askan wi ginnaaw bu ma sant yàlla bu baax julli si yonent bi salallaahu alayhi wa sallam sant si Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul di ñaan Sëriñ Muntaxa mu yàgg fi te wér di sant mboolem askanu Touba département Mbacké ci li nga xam mooy lu weesi woon ak liñ jëm ku ne xam na ni fan yëpp fukki fan ak nangam def na ko campagne ba dimanche bi passé lan defoon élection yi yàlla dogal na élection yi ñu ngi ko doon topp ba tey ci ngoon gi ñu am lu leer ci loo xamante ni ci lu mën a wax mooy askan wi nga xamante ne ñoo demoon doon dagaan seeni baat ñun ak yeneen candidat te ñun demul woon coalition ñu demee seul boo ko gis-gis yàlla dogal ñi nekkoon ñëpp nekk ay coalition bi ñu demee ba nga xamante ni ngoon jot na bi ma jógee tribunal bi décompte bi jeexee ma xam ni résultat bi nga xamante moom laa jàpp ni mooy li am mooy xam naa ni Yewwi Askan Wi gagné na élection département bi loolu nag bu amee duma mën lu dul félicité waa Yewwi félicité seen candidat muy Fallou Mbacké encouragé yeneen candidat yi tàmbale ko man muy la candidat Benno Bokk Yaakaar muy la candidat Wallu ak Ablaye Niane ñu ñëpp mu encouragé leen parce que lii mooy jongante jongante bu amee dana am ku am dana am ñu ñàkk mais Sénégal Touba moo gagné département moo gagné kon maa ngi félicité encore waa Yewwi di félicité Fallou di ko ñaanal yàlla askan wi li nga xamante ni moom la ñu ko tànnaat pour mu continuer liggéeyam mu bañ a tas askanu yaakaaru askan woowu noonu loolu moo waral bi ñu xoolee xam ni 602 bureaux de vote yi nekk ci commune Mbacké parce que 585 yëpp Yewwi gañe na ko gañe Sadio xam na ni mënutuñ ko dab commune Touba 602 bureau de vote la 585 yi Yewwi moo ko gañe gañe Sadio kooku mënutuñ ko dab ñun troisième position la ñu jël ci ces 602 bureau de vote yi nga xam ne moo am ci Touba yëpp ko gis-gis moo jël troisième ci li nga xamante ni mooy commune bu Touba bi ñu demee ci àll bi boo ko gis-gis dañ ko fa gañe ci commune yëpp parce que am ñoo amuñu foon ay candidat mais bi ñu dëkkee commune Mbacké boo ko gis-gis moo jël deuxième topp ci boo ko Yaakaar mais boo xoolee 77 bureau de vote yi am ci commune commune bu Mbacké bi ñu ko rawee rawee nan yeneen ñi toppoon suñ ginnaaw 30 à 40 vingt suñ différence mais bu ñu calculé yooyu yëpp. mënatuñ woon a dab Yewwi fii nga xamante ni mooy ci li am yëpp ci département bi moo tax boo ko gis-gis bi ñu defee suñu calcul jàppoo ne ni dana dem à deuxième position jàpp naa ni fi mu toll ni may wax ak yow ñu ngi si entre troisième position ak quatrième position di ko xëccu ak waa wàllu mais xam na ni Yewwi Askan Wi moo jël première jàpp na ni Benno Bokk Yaakaar moo jël deuxième diggante troisième ak quatrième mi ngi nekk ci diggante wàllu ak li nga xamante mooy boo ko gis-gis loolu nag bu ma ko waxee duñ doy na boroom xel ndax suñu campagne yëpp mbubbawunoon noonu kenn pour dem ñun dañoo dëggaloon suñu bopp demal suñu bopp ànd ak suñu bopp génn suñu moyen bopp kenn fekkuñu si aussi suñu campagne kenn fekkuñu si amul ci benn moyen boo xamante ni am nañ si benn parti wala su ko doon kon loolu bu fekkente am na ñu dégager si ay moyens dem si population waxtaan ak ñoom wala suñu procès jël suñu oto. muy toll fukki oto ak benn ñu jëlee ko si Dakar suñuy parking indi ko campagne ko dem si askan wax li nga xamal ne war a wax yaakaar naa bu fekkente li am na dañuy wan rek lan doon wax ni bu ñu àndut coalition li naan Ablaye Wade moo moom bastion Touba bu coalition wut ak ñun loolu du ko gagné te c'est la première fois Yewwi gagné élection ci Touba muy bastion mouridisme kooku nag liggéey lay aajawaat ndax fi ñu jëm élection législative mi ngi ñëw. suñu avenir politique tamit dañ ko téyel suñu bopp ci kanam tuuti fan yi di ñëw dinaa leen ban décision laa jël ci sama avenir politique je vous remercie. coalition amul diggante boo ko gis-gis muy Cheikh Abdou Bara Dolly ak waa PDS du ñu gagné élection départementale ndax ñëw séddu électeurs yi te ñu ñaar bu ñu boole woon ñooy raw malheureusement loolu amul te waxoon naa leen ko. waxoon naa ni élection yi nga xamante ni mooy yiñ jëm dafay. nekk loo xamante ni sans référendum la wala deuxième tour élection présidentielle 2024 hmm. askan wi tamit élection premier tour élection législative élection présidentielle 2024 askan wi tamit message boobu dégg na dugg dugg na leen xam nañu ko moo tax tey ñi wote ñëpp ay lu si ëpp ay xale lan te xam na ni wot bi nga xam moom lañ wote nii mooy xañ ko dakaar xañ ko Thiès xañ ko Bambey xañ ko Diourbel xañ ko département Mbacké xañ ko Ziguinchor kooku jàngal la est ce que dana si jëlee nag ay lesson kooku li ci kanam rawuli bët mooy xam naa ne daal fii ak législatif dynamique bu continuer ñu gën a yaatal coalition bi cohabitation day am assemblée nationale élection 2022 mois de juin 2024 Macky Sall même candidat ba mu fi teg day perte élection yi observation bi le maire sortant Abdou Mbacké Ndaw nekkoon candidat commune Mbacké def na ko ànd seeg ay awoka incha allah dañu ñu dugal li nga xam mooy recours cour d'appel bu Thiès pour que maanaam non respect parité bi nga xam am na ci liste Benno Bokk Yaakaar te gëm nañ ni liste boobu noonu même bu gañee dañ koy disqualifier ci li nga xamante ni mooy ngañaayam ndax respectuwul parité numéro trent numéro 34. pour que dafa am ñaari étape première étape bi. mooy bi nga xam avant ñuy publier mën nga ko def bu njëkk mais deuxième étape bi bu ndee maanaam ba décompte am yow da nga def observation ci liste bi ak avocat te def nañu loolu kooku maanaam bii cour d'appel bu Thiès la mu koy déposé moo tax bii ni ñu ko defee nii noonu lañ ko war defe ndax ñaar war a am bu njëkk bi avant ñu koy def fekk ndeysaan sa tur mënu ko woon def mais bii nag observation bi def nañ ko def na recours bi cour d'appel bu Thiès incha allah euh, li si kanam raw li bët loi dafa am dafa am solo ci réew il faut ñu respecter loi te 2013 dafa am maanaam loi boo xam ne dañ ko wate woon man mii di wax ak yow en tant que vice président commission de loi assemblée nationale dañu wax ni bépp liste bu man di doon boo respectul parité valable comme que respectul parité bi te moom si bopp nee na ñoom dañoo juum te loi xamul juum loolu moo tax ñun liñ si yoon may dañ koy def bu nee nag ba yoon àtte lu ci yoon dogal ànd na si mais xam na ni daal. lii nga xam mooy li am ci li si benn boo ko yaakaar ngir ñàkk respecté parité bi te yoon may ñu ni lii fii ngeen war a jaar foofu dañ fay jaar àddina nag nii la kenn ku nekk sa ëllëg yàlla moo koy xam sabootu iñaanewuñu mais nag mbirum yoon yoon la